comme li ma la wax rek xam nga justice yow boo amee problème fi ngay mujjee mooy da ngay dem devant le juge. Mhm. parce que le juge ne crée le droit. juge moom day toog xaar texte bi mhm. ñëw. Mhm. texte boobu nag bu yegsee ni ñu ko tëggee rek noonu la koy noonu la koy kii c'est vrai que le am na pouvoir d'interprétation nag day am situation xam ne il est lié euh, bu texte bi leeree dañuy du ko interpréter mais bu texte bi baaxul juge bi sera obligé de mu appliquer ko ni ko gisee rek. moo tax li ma wax ni réforme yooyu dafay laaj ñu càmbaraat texte yi xool continue bi. ba pare aussi organes yi organes de justice yi nga xam ne ñooy rendre décision aussi am na ci ñoo xam seen pouvoir dafa dafa yaatu. parce que boo demee ci dëkk yu mel ni France par exemple yow procureur mënul xëy rek euh, dugal a kaso nii ba am un juge de liberté de la détention koo xam ne yow su boo présenter de garanti yoo xam ne tu tu peux se te présenter devant la justice à tout moment jëlu ñu lay tëj patam patamare dugal la kaso fàtte la foofu. Mhm. en plus boo xoolee seen de procédure pénale Euh, boo toogee un an wala deux ans amoo beneen code rek yow tu n'es plus à jour parce que ñoom réforme dafay yà dafa gaaw. Mm-hmm. dafay gaaw a réformer adapté au contexte social mais ñun da ngay am réforme balaa nga ko amati c'est des années. fekk na contenu texte boobu sax n'est plus habilité à à appliqué wala lu bëri lu bëri réer na ci quoi wala baaxutul. ba tax na souvent euh, nit ñi dañuy nekk di di casse di ñaxtu yaakaar ne seen droit défendre ñu ko. ba pare comme ni nga wax léegi justice war na gën a jege population aussi man yaakaar naa am na yenn organisme ñu état bi créé woon di fa dugal xaalis muy maison de justice maison de justice waruñu rek toog di xaar population bi di ñëw si ñoom ñoo war a dem vers les populations. Hmm. parce que ñoom comme son sont pas des juges war nañu organiser des séances de formation ci quartier yi di wax ak population bi di leen. nan moo ko taxoon jóg à l'origine bon c'est vrai que am désencombré tribunaux yi. am na yenn conflit ak conciliation yoo xam ne peut-être mën nañ ko régler foofu en attendant ñuy dem devant le juge. Hmm. parce que ñëpp xam nañ ni yoon moom amul xarit boo amee benn différent ak sa jabar wala sa bokk boo fa demee peut être am na lu bëri yaa ngi ko doon nëbbu day feeñ peut être mën nga jaar maison justice gars fexe ba ngeen juboo mm-hmm. mais ñooñu aussi war nañu génn seen kii yi di def ay séances de formation au niveau des quartiers di wax nit ñi en matière de droit de la famille droit foncier boo defee lii lii moo la ciy fekk boo jaayee terrain bi moo moo ko nangam nangam nit ñi gën a xam daal euh, ñu wax leen contenu loi yi comme ña fa nekk am na ay am na am na ay juristes maison de justice bu dee ay juristes am ñoo xam ne ay étudiants fac droit la ay master 2 am nañu ko euh, je pense que ñooñu bu ñu demee jege population bi rek euh, li de fait que nit ñi euh, ñàkk xam droit di dugg ci yenn tuuxu dana yi mën na wàññeeku. d'accord mën na wàññeeku. beneen bi mooy pouvoir yi nga xam ne par exemple membre du parquet am nañ ko ñu tëj nit juge d'instruction affaire yooyu war nañ ko wàññiwaat ba nga xam ne vraiment longue détention provisoire yi. mën a wàññeeku ñu joxe benn durée wala nit ki aussi balaa nga koy envoyé en prison nga mën a joxe un contenu clair mhm. boo xam ne c'est convaincant parce que dañ naan kii dugal nañ diw man bàyyi bàyyi nañ diw dugal nañ ma en fait ki ñu dugal kaso bàyyi diw kooku en bu fekkee amul toutes les informations day yaakaar ne moom la ñu ciblé parce que dafa statut dafa ndax wala nangam nangam parce que avant ñu koy dugal foofu ki ko fa envoyé n'a pas donné une un contenu trop clair parce que il a utilisé leen pouvoir discrétionnaire boo xam ne peut-être moom yoon moo ko may. loolu aussi day nekk loo xam ne day indi ay ñaxtu ci ci population bi.